jëm ci wàllum assainissement wala wàllum courant ndax nee na gis nga autoroute Ila Touba bi ak hôpital bi nga xam ne moom la tabax fii ci Touba moom njiitu réew mi di Macky Sall nee na taw bari yi nga xam ne moom la taw moo tax ndox mi di jaba jonge fi nga xam ne mooy Touba hôpital bi nga xam ne nag defar naa ko loole lépp dafa aju ci wàllum modernisation gi nga xam ne taxaw naa ci ci jëm nag ci wàllum structure sanitaire yi nekk ci biir réew mi yéen kaay gi di Le Soleil nee na njiitu réew mi di Macky Sall xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou baax a baax taxawaay bi nga xam ne daan na koy amee kaay gi di la Soleil nee na mi di Macky Sall am na programme boo xam ne jëm na ci wàllu wér yaram gi journal bi di enquête nee na inauguration hôpital bi en tout ba nga xam ne moom lañ fa gis daan na jékki tayoo ambiance boo xam ne daal mën nañoo wax ne meeting la meeting yéen a kaay Vox Populi ñu xëy fekk fa collectif ñoo lànk ñoom ñoo ngi woo ñi nga ñu daal la kilifa ak Simon nañu leen bàyyi bàyyi ñu ñibbi wala ñu dem nag géejewaay seet Bouga Sali jàpp ko yóbbu ko ca kasu ba loole la collectif ñoo lànk ñoo bañ daal di wax nee na nag ñi nga xam ne ñooy attekat yi maanaam daal nañu assumer nag seen indépendance te nag bàyyi nag di fi victimiser woo yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu xibaara nan ñu Prodac Prodac nag am nay détournement yu bare bari yoo xam ne ñoo ngi ko doon wax ci Prodac waaye nag ba léegi ni daal sans coupable amul kenn koo xamante ni jàpp nañ ko ci loxo jamono ji maanaam daal di koy teg ay daan ci yi nga xam ne moom la ñuy tudd Prodac wala ñu ne nag kii dëggan melentaan kii moo ko def ci lu leer naññe yéen a gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall stratégie yu yees yi nga xam ne daan na koy teg ci lu jëm ci wàllum xeex lépp loo xam ne aju na ci wàllum corruption loole nag ci boppam of nag kuréel gi nga xam ne moom la lañ dénk wàllu woowu moom nag daan nay mobiliser secteur privé bi waxtaan ak ñoom ngir nag secteur privé bu Sénégal dugal seen loxo ci lu jëm ci wàllum xeex corruption wàllum guerre ci Sénégal kuréel gii de MEDES ñoom nag seen président di président Mbagnick Diop moo leen fu représenté woon waaye nag waa MEDES ñoom nag am na juróomi engagement yoo xam ne jël nañu ko maanaam nag ci kanamu état bu Sénégal ci kanamu njiitu réew di Macky Sall ci kanamu OFNAC ñoom nag daan nañuy wax ne jël nañu engagement bu mat sëkk ngir nag bokk si ñi nga xam ne ñooy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum kër ci réew ñoom nag nee nañu daal danañu daal di fexe ba ñu respecté nag lépp loo xam ne jëm na ci règle bonne gouvernance comme ni ko état bu Sénégal taxawalee ñoom waa MEDES nee nañu nag jël nañu engagement former informer sensibiliser Cissé mboolem ñi nga xam ne nag ay membre MEDES lañu ñoom nag nee nañu ñu nangu yëkkate ay daan yu métti yi lal ko ci ndoddul mbooleem ñi nga xam ne seen i membre lañ bu ñu defee fraude maanaam bu ñu yëngatoo ci lu jëm ci wàllum corruption yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu rapport bi nga xam ne of nag génne nañu ko ci lu jëm ci wàllum guerre ci Sénégal ñi nga xam ne ñoom lañ ci gën a joxar bi baaraamu tuuma waa gendarmerie la waa police waa santé ak waa éducation yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu fekk fa nga xam ne moo jiite groupe parlementaire benn bokk yaakaar ak wax ci député yi nga xam ne joxar bi nañ leen baaraamu tuuma ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique moom ay miiru ñi ngi nee na du flagrant délit na nag jàpp ñu député yooyee daal ci loxo ci poosa waaye nag nee na enquête bi mu ngi wéy te kenn sàkkoogul ci ñoom député yi ngir nag ñu daal di lever seen immunité parlementaire nee na benn bokk yaakaar du protéger benn député nee daal yéexu la yéene kaay gi de la na ko ah kay mbir mi kay yéex na loola maanaam député yi nga xam ne ñoom lañ joxar bi baaraamu tuuma député yooyu nag dafa mel wóor leen la la nguuda mbuub daan nay wax ne maanaam xel ci boppam mënuta nangu ñaaw teef gu mel nii ñu ko bëgg koo nëpp nëpp la Alioune Tine nee na nag lii nga xam ne moom lañ tuumaal député yi maanaam mbir la moo xam ne garaaw na genn xeetu garaaw goo xam ne fu ko waay natt na koy passé yéene kaay gi di wal fa jëree nee na nag wàllum ndóol gi wàllum ñàkk gi ci réewum Sénégal lii nga xam ne rapport yi wane na ko a garaaw li nga xam ne moom la rapport yi wane yéene kaay gi di libération xëy dañu xibaara naan ñu bi nga xam ne moo fi wutee benn vidéo boobee rek ndax ñeenti vidéo la ko waa gendarmerie section de recherche filmé ak juróom-ñett ci ay photo yéene kaay gi nee na nag dossier boobi daal gendarmerie section de recherche bi ñu enquêté ba pare dañoo jël ñeenti vidéo ya ak juróom-ñett ci ay photo boole ko ca dossier ba waaye nag lan moo tax benn vidéo ba senn loole la gars yi di laaj yéene kaay gi di source xëy duñu xibaar naan ñu avocat Seydina Fall Bougazelli nee na ñu ko Bouga silence rajo maanaam daal mbir mi bul ci waxatee yéene kaay gi di estat xëy duñu xibaar naan ñu Sadio Mané dugal na lu toll ci téeméeri bi ci club bii di Liverpool yéene kaay gi xëy ñu xibaar naan ñu Afrobasket bi tey ji la Sénégal Égypte bu 13h jotee yéene kaay gi di sunu lamb xëy ci Balla Gaye numéro 2 mi nga xamante ni moom nag bakk bi nga xam ne daal moom lay fësal mooy jàpp bëre daan ñibbi Balla Gaye 2 dalay song jàpp ngemb journal bi nee na jàpp ngemb daal Balla ay na ci lool waaye tamit daan nay wax ne spécialiste la ci lu jëm ci wàllum rotation ak wàllum demi flexion